mujj reconnaissance de tous les euh, euh, tirailleurs tombés jamono juñ toll nii nag mu mel ni xob bu baax na ci laax bu tànk ndax ne nañ Macron. ñu nee na ma ma répété di tàngal seen xol. <laughs> waaw ñëw ci ci point bi da ngay xam naa. waaw xam nga point wu affaire France moom. Mm-hmm. beneen leçon nga fay jàngat rek. Mm-hmm. ne la woon moo woon ni mm-hmm. Ousmane Sonko premier ministre avait dit Français il faut qu'il change. seen nit ñuy doxalee. vous ne pouvez pas prendre des décision yu laal ay réew et vous prenez ces décisions là unilatéralement toog sa biir néeg rek ne ñeenti sénégalais benn burkinabé ak benn ivoirien yéen la ñuy honoré te laataa ñoo ñëw ay 39 45 14 18 boobu fekk na suñuy maam dee nañ ci ndox yi lu tolloog ñetti téeméer ci ay at di ñetti siècle lii yëpp nasaraan yi teg na ko ngeen xëy bés ñëw mbir mi nii rek lay demee ñuy daal lañuy ñuy honoré lii ak lii ak mu ne leen ñun nag dañuy joxe suñ version. affaire bi du demee loolu. yoon ni ministre am affaires étrangères Yacine Fall mu ne le peuple sénégalais donnera sa version bu dee da ngeen am ay version yoo bind ci seen archivier ñu nit xam nañ li xew fii Caaroy. Hmm. te dinañ ko nittali suñuy doom wax ñëpp mbir mi ni mu demee. président de la République ci conseil des ministres président Diomaye Faye ne nañ leen préparer quatre-vingtième anniversaire boobu googu. Caaroy 44 soo ko dégg leen ci ànd bien bon te boobee fekk na président Sénégal a nga ma ma ma ma ma ma ma nga ca ñoom lii mooy taxawaayu institution institution da ngaa indépendante réew da ngay am souveraineté. waaye yow bu ñu la jekkoo rek sa opposition nga ne Nations Unies daaneel la euh, Union africaine daaneel la nga ne nous sommes un pays souverain alors que yow tubaab yi lu ñu def doo leen wan ne leen nous sommes un pays souverain Ousmane a montré au monde entier que ni ñin nous sommes un état souverain. dañoo mhm. moom suñu bopp. après ñoom ils ont reculé. Mhm. France la ñu jël léegi dogal nee nañ ils vont tous les combattants africains. Mhm. tout tout tout. avec un grand T. avec un grand T. waaw léegi loolu lan moo koy indi. ah xobu de. fulaak fayda. Mhm. fulaak fayda wu kan. autorité US yi su suy Sénégal. xale boobu Ousmane Sonko moo indi loolu. Mhm. wax Macron ni ko recule. mu reculer mu reculer. bu reculer wul da koy gëdd. jaara te loolu mooy dëgg ñun nous sommes souverains nous sommes indépendants nous avons notre hymne notre sceau notre drapeau ñe ñe ñe ñe ñe rek affaire bi di yem ci gémmiñ rek rek rek ci làmmiñ rek teew gayam ci pratique ci terrain bi nii xaajoo bay appliquer lu ni mel mii <laughs> dafa won sénégalais ne leen astafurlaa dafa won adduna bi ne leen la woon wëni na ak lu ko waay mën a waxal defantekat la defantekat la defante yu bëree bëree bëree bëree bëri li tax yenn saa ñenn ñuy jàpp ne sawaay nag bi yoon moom vraiment daanu na sawaay kat waxam ji moom bi yoon maanaam dadul dul bay bayal day wax la mu gëm pare dem nit ñi mën nañ wax ne nag ñoom moom lii mais te digg ba la naan teel jaar jóg dem yoonam te loolu la def fra tubaab yi waaw léegi lii bu ko Ousmane Sonko waxul woon tey di xalaat ne bu waxee nii français yi mer seen entreprise yi rocceeku la France fait partie des des de des des, des partenaires wala les plus grands partenaires économique di Sénégal ngay tiit ah mbaa ñoom Bolloré duñ ñibbi mbaa waa Eiffage duñ ñibbi mbaa mbaa mbaa mbaa ndokk communication nga jël tali nga jël jën nga jël xar nga jël tisi nga jël micro nga jël médias yi sax dugg nañ ca France nga yenu greffage nga jël musóor nga jël quotidien yi nga jël portable nga jël montre nga jël suñu fecc mi sax dañ koo jël léegi fecc mi léegi jël nañ caméra nga jël jël nga jël yàpp nga jël tali nga jël communication nga jël bàyyeetuñu dara yow yow léegi nit ñi jël te ñooñu gën a dégg olof léegi honorable waaye yow lépp nga jël mhm. li tax ñu bëree bëri doon ñaan ñaan yàlla bëggoon ay falu hmm. xeet yi mel nii rek la ca caaroy 44 juróom-ñetti fukki at téeméeri at yu manqué ñaar fukk kenn musula osé wax français yi ne leen li ngeen def nii defuwul lu dul gone yi daal ñoo koy fooyee ak plateau télé yeeg rajo yi rek caaroy 44 suñu maam ni ngi leen def mais ban autorité mooy taxaw défier les français ba pare wax leen ne leen vous êtes des assassins nee na leen ils ont été torturés maltraités tués assassinés. seen droit lañ doon laaj. bu ñu waxee ñu ne non non non sa waaye en dehors de affaire njiital parti Pastef xam nga eh, PM la aussi quoi. affaire diplomatie xam nga kansil parti affaire diplomatie. ah dégg nga te Sénégal ak ñoo gaaw ci loolu. Mhm. mbay doo yow c'est que fi nga bokk gaayeen xam nga ñenn ñi bu ñu waxee bu leen doon waaye non sa waaye yow député nga non premier ministre gaayeen warul waxee nii non non statut njiitu parti mooy la non PM la au contraire au contraire. Ousmane Sonko sax dafa il a mis de l'eau dans son bissap en mettant en en tant que chef de parti. Mhm. loolu la du parti parce que. Mhm. bu fa defoon premier ministre bi sax araabul mais dinañ ne président baa ngi nii moom Macron di nuyu moom PM bi mu wax lii ñu ne ko rafetal ko mais ku bàyyi woon Ousmane mu jam PM bi ci suuf waaw léegi ñun am nañ gée wala amuñ gée. am nañ gée de waaw léegi lan lañ doon ñaan yàlla suñu maam yi retrouver seen ak ak seen yelleef franc symbolique bu ñu leen joxul xaalis sax yëkkati dërëm jox leen ñu wane ne diw moo tooñ baalu na même bu dul dërëm tamit baalu na ñu honoré leen am na wala kon jeex na joxal keneen. <laughs> li nga mën a wax loolu da nga mën a wax. lii laa wax. ñun tam loolu lañ mën a wax. kontaatu leen. Ah, Amy Cissé Amy bi bu ñëwee rek xamal ne bu narul jàmm. waaw laay topp xam nga vendredi bi passé dama def mauve. ma def blanc affaire di cartouche nga def ne tey naan laalaat mauve bi rek. am na solo waaw ah, lu ñu am jël. sañ-sañ nga sa mauve baax na. <laughs> pare dem lekk laax te nga gaaw a kii nag ah. kii yi na gaaw. ne sama xel mi lépp ci laax mi. même ma wax li li li ñu mën a wax yëpp sa honorable wax na ko. voilà dañuy ci ñafaat tuuti rek. Mm-hmm. ndaxte euh, France dañ ñoo yeb jaara. Mm-hmm. Euh, parce que yeb mu weesu nga toog ne da nga reconnaître ne six morts pour la France léegi suñu PM génn ne la la woon woon ni na. Mm-hmm. ñaata nit ñoo ñàkkoon seen bakkan ci li nga xamante ne moo di Thiaroye 44 nekk événement boo xam ne événement bu douloureux la kenn dootu ko fàtte ci Sénégal yow xanaa au moins. na nga xamante ne sax ñoo ci ñàkkoon seen bakkan ba léegi am na ay famille yu génn nañ indemniser wuñ leen ñoo xamante ne ba tey xamuñ fu seen ay kooru yi nga xamante ñoo di ay waajur nekk loolu yëpp ñun ñu koy dund yow utoo benn loo xamante ne dina alléger situation bi ngay taxaw naan six tirailleurs rek la ñu reconnaître ne ils sont morts pour la France Guy seen Sagna dafa am lu mu wax keroog mu ne ils ne sont pas morts pour la France mais ils sont morts par la France maanaam français yi ñoom ñoo leen boom. Mm-hmm. donc bu fekkente ne Elimane Dior ni taxaw na xamal France carrément que ni la woon woon ni na après ñu teg ci ay diir ñu gis ne France dellu na ginnaaw kon cela veut dire France ci ay caaxaan la nekkoon. parce que lii la ba mu neex la. nga ne lële la finalement est-ce que ñoom respecté na ñi nga xam te ne. dañu ñu yab et pour man ñàkk respect boobu ci xam kan la commencé. Mm. nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite. dëgg la. parce que téere xam nga ni ñu koy waxatee sax euh, uude na mu la gis da lay awalee parce que bu fekkente ne gis nañ ci yow ab ñàkk fay wala ak matadi boo xam te ne luñ la ñëw nga tegoo ko buñ la ko teg buñ la ko dañ la koy teg dañ naan kii nangu na ko xam nga tey jii Sénégal dafa toll ci benn situation boo xam te ni mais instant bi ñëpp a bëgg a collaborer wu ak Sénégal ak pétrole bi nga xamante ne moo ngi génn gis nga Chine bi nga xamante ne puissance mondiale la bu yàggul dara suñu njiitu réew dina fa dem donc France fi mu ne nii da koy leer na ne instant bi moom moo am plus lu muy perdre que Sénégal parce que xam nga ne Chine moos fu mu taxaw di di la piis France di la piis mhm. Chine ngay topp ji donc français yi donc ñoom ba tey ci seen intérêt la ñu nekk de parce que faral naa ko def ñoom fu seen intérêt nekk duñ fa nekk ñoom xam nañu tey jii bu ñu coupé relation ak Sénégal ku yaakaar ne Sénégal moo ci gën a lor yaa ngi nax sa bopp France moo ci gën a lor parce que lépp loo xam ne nañ koy utiliser daanaka ñun ñoo leen koy jox donc pour man nañu amaat suñu dirigeant yi nañu amaat fulla nañu amaat maturité gu toll ni français yi dinañ leen weg te bu ñu leen wegee weg googu dafay dem ba li nga xamante ne mooy suñu ay collaboration mm-hmm. parce que collaboration yu ñu daan gis ak coopération yu ñu daan gis mooy français yi ñoom ñooy jël benn quatre-vingt-dix pour cent wala benn quatre-vingt-dix-huit pour cent africains yi benn pàcc bu ndaw lañ ci am te loolu dafa war a changer et loolu la ñuy xaar ci li nga xam te ne moo di suñu dirigeant yi xam nga ba mu ba mu génn ba Ousmane Sonko génnee wax ñu bëri comme ni ko honorable waxee léegi ñu ngi naan fekkee ne dafa ñëw wax ñu applaudir ko ne waa kontaan nañ ci li ngeen reconnaître suñu ay siis machin machin loolu dafay jeex mm-hmm. donc il faut également ñoom suñu ay dirigeant ñoo waat fulla ak fayda ak mat nga xamante ne ñoom la ñu soxla ci moom pour que tubaab bi mën ñu jox suñu cër parce que complexe bi pour man dafa war a jeex. dëgg la. Mhm. voilà. su jege ma. ñu dem. Euh, ayca demal ñëwaat nga taxaw tey da ngeen di bi damay dem assemblée. d'accord. sañ see nga a honorable. ba oh, atal. est-ce que doo may ma daggaat ko tey baas nii rek. temps jaar daf may tëb rek léegi revieur la ah wax ma naan bul wax. léegi foofooy sam place nag ma ba de. bàyyi ma jaar daf may noppiloo. Eh, damay garaaw nee nañ damaa parax paraxee. laay combat ne mooy sugu à la bi. xam nga xam nga xam nga <coughs> ban livre. moo combat xam nga ban livre la ma sa benn papa jox. waaw. l'histoire général du Sénégal. Hmm. tome bi ma ci war a lire de 1814 à 1917 la. 1917. billaay te benn tome la de historien yee ko. mais doo ñëw ba 2017 sax. <laughs> 1917 su xaw na sori de wala. 1814 ba 1917 te tom benn benn tom la ci ay tom. d' accord ndax keroog bi ñu waxee fii ci tirailleur ma ne ko naa ko lire papa. Hmm, eh, eh, foog ma jàng tirer ailleurs tirer ailleurs. doxalal bés ah, <laughs> bi la ah bonjour. Ah. da ngeen dem sans pub. introduire ma après nga dugal bi. d' accord foo jëm ak sa garab bu eh, foo jëm. d'accord rebonjour honorable rebonjour bés bi le jour comme nee nga tey moom pub bi mooy lool. kii kii kii bindal na ma lu ma naqari. nu mu wax commentaire yi kii dañ ko war a bloqué. nee na ma am na tey comme Macky.